de munas ñu dalalaat la bàyyi la nga yaatal Aïcha mi ngi noonu euh, mbokk yi euh, téléspectateurs yi dañuy mhm. waxtaanee li nga xamante ni instant yi mhm. actualité la dafa dafa lëmbe réew mi mhm. buñ nee joŋe rek euh, sa biir néegu sëy la yaa xam góor yaa xam jigéen mais dañoo seetlu ci biir néegu sëy yi dafa yëngu loolu sa féetu ba tax na am jëkkër am far dafa dafa baawaan léegi ci dëkk bi. muy thème bi waaw mooy thème bi am jëkkër am far. Mhm. donc ba fa naa ne bu nekkee sa biir néegu sëy. mais Alioune waroon na fee toog de. pour nga waaw waroon na fee toog ndax moom mhm. dafa compliqué. boo nekkee sa biir néegu sëy da nga war a yem nag ci sa jëkkër. Mhm. boo nekkee sa biir néegu sëy da war a yem ci sa jabar. mais góor ñi dañuy doxaan yoo gën a dëng garab yow. sonn nan tàyyi nan. ma bëgg a laaj askan bi ak téléspectateurs yi. bi di def ak bàkkaar bi di def benn la war a du benn est-ce commissariat bi mais dañoo andi tey jii ki nga xamante ni mooy jumboor yi ñu fas yéene ci faram fàccee kàngaam la te boppam nàcc na ci loolu yi ay ca frère am jëkkër am far bi déet waay déet waay man de damay xool rek li ma li ma yaakaar ne moom ngeen di def ma wax si <laughs> mais jigéen ñi moom seen xam-xam kenn du si màcc ko ah, faral benn góor parce que xam nga waa ji waa ji moom bi mu ne day bind téere jigéen mhm. nga xam ne jigéen ñi dootuñu nax kenn mhm. mu bind ko ba pare romb benn teen jigéen ñi di root mooy jigéen ñi ñu xool ko mu ne leen bind naa seen téere léegi bu may jugee génnee tàngal ko nit ñi seen naxe jeex na jigéen bi ne ko léegi pardon nga yan ma bi mu koy yan la nangu téere bi sànni ko ci teen bi na ko ak bii c'est-à-dire jigéen moom kenn mënu ko xam mais xam nga tey euh, euh, lan mooy problème mu jigéen ñi ak problème mu góor ñi mm-hmm. jigéen ñi dañuy dem dañuy ñëw sa kër mais xamuñu luy sëy xamuñu ko am na góor yoo xam ne nii tamit dañuy indi jigéen mais xamuñu jigéen xam nga tay jii sooy seet euh, kër kër armee la mais du am commandant su amee commandant rek keneen ki bàyyi ko fa loolu mooy lan yow lan euh, bu ñu nekkee ci kër euh, commandant du am mooy kenn ku si nekk bu defee lu ko war kenn du commandé kenn waaw bu ko kenn ku nekk defee li ko war. Mhm. kenn du commandé kenn. Mhm. xam nga jigéen da ngaa dem indi ko pour li manqué ci yow mu mottali ko. Mhm. du noonu. yow tamit nga ñëw fekk si góor pour li manqué ci moom boo demee bam la koy wax lan la lay doyee. Cheikh waxal rek. imaginer nga dem indi jigéen sa jabar yow. te li manqué ci moom yaa koy defal sa bopp lan ngay doyee ndaw si. loo koy doyee moo tax ma ne la kër armée la mais du am commandant c'est-à-dire góor gi day def li mu war a def mhm. jigéen bi def li mu war a def mhm. commandé du fa mhm. parce que soo wanee sa jigéen a góor gi wane góoram mais ñii seen jonge yëpp mu ngi si seen mees yi ak seen sañse yi ba pare yow su fekkee da nga indi jabar teg ko ci kër te yow kii nga baal ma ci wax bi kii dem jël euh, euh, appartement di jaay boppam moo sa jabar yem ndax mun na nekk. am na ñoo xam ne ñi jël appartement yi ak sa jabar ñooy yem parce que li muy def la sa jabar di def wala sa jabar bu ko defee ba pare danaan yàcc yi si des yaa koy defal sa bopp soo ñëwee si kër bugg yow sa jëkkër yëg la carrément. da ngay def loolu kooku ut appartement di def ba pare di def lu kooku dul def. maanaam. maanaam ji jigéen ñi bu njëkk ba boo musaan ñëw. Mhm. dangay gis ni wàllum lekk wàllum naan. li nga war a boo li mu lay jox nga sol nu muy àndeek yow nga sangu mhm. ni mu lay joxee lekk gi yooyu amatu ci mhm. yow yaay toog ba mu yàgg sax naan ko mais yow doo ma jox añ mu ne gis nga de mhm. dem indil la ko mais ataaya defar nga ko ba pare mu ne gis nga de ma xaaral man ma defal la ko léegi yooyu noonu ngay def noonu xama tay soo génnee si biti keneen këf la di def loolu muy def comme ñoom seen sëy yëpp ci néeg bi rek lañ ko jàppee. Mhm. mais yow da ngay jàpp ni yëpp benn la. Mhm. parce que am na góor yoo xam ni si biti ñu fay jël ak li ñuy jël ci kër gi moo nduróo moo tax ñu defa ni lépp benn la. Mhm. mais su fekkee jabar bi nga indi dafa def li mu war a def yow doo xalaat loolu ba di ko def. loolu mooy affaire bi parce que jigéen ñi aussi tamit. wax dëgg yàlla euh, tekk bi kër yi ne tekk tekkaaral nii góor ñee muñ. <laughs> Mm-hmm. parce que yow. Mm, mm, góor ñi yemuñ que yow. yow jigéen yëpp a a jox lekk. lim la a jox nga mm-hmm. lekk. lim la war a jox nga naan. yow du mm-hmm. mm-hmm. leen góor moom amu fi dañuy wax dëgg rek te yàlla tax. moom li moo koy yëngal. kenn du fi faral ñi góor ñi ñooy muñ léegi bàyyi ko mu wax lan moo tax góor ñi ñooy muñ. non góor ñi mooy muñ ma wax la dara. mu góor bi muñ bi mu am dëgg dëgg dëgg. te jigéen war ko xool di ko ci yërëm. xam nga ban la. muy ban. damay liggéey ba ngoon ma ñëw yëkkate xaalis jox la ne la loo togg nga ne ma ceebu jën ma ne la si suba ba léegi ñam duggul sama gémmañ te li ma la jox munoon naa ko lekk xanaa nga yërëm ma lim lay jox si poosam si suba ba léegi mi ngi ko garde munoon koo lekk lekk ko ba pare ne la damaa xiif defaral ma ma lekk doo ko si yërëm mhm. mais dañ la koy laaj ba pare nii dañ la koy laaj ba pare ba pare léegi jigéen ñi dañoo xewal affaire bu grave dangay ñëw nii ñu kompaloog seen xarit seen xarit bi di leen jiiñ bor. bandi la kii barke dañ leen di jiiñ bor. école bi sax ni muy mettee nii pour inscrire say doom. Mhm. boo leen nee aw ma temps demal ma ci école bi dañ lay yokkal fay bi. waaw transport. déedéet ñoom ñooy dem waa ji bu nee leen cinquante mille ñu ne la soixante mille. transport bi la dix mille bi. transport bi déedéet déedéet non xam nga tamit dafa dafa am benn affaire boo dafa affaire dafa am benn affaire boo xew gis nga jigéen. ma wax la dara. est-ce que xam nga jigéen kenn du ko bëgg. Mm-hmm. yërmande la ñuy bëggee jigéen. Mm-hmm. gis nga góor soo amee ci moom yërmande rek mu bëgg la. Mm-hmm. parce que dafa am ñeenti affaire yoo xam ñetti affaire yoo xam ni day nekk si suñu yaay yi ñun góor ñi. yéen nag mun ngeen am ñeenti affaire mhm. parce que mun ngeen ëppale suñu yaay yi benn. lu tax ñoom ñu ñuy tàggaleeg suñu yaay yi moom a jaaxal. xaara non seen yaay moom mi ngi dund parce que da ngay ñëw bu amee problème nga ne nga ne ma la nga laaj ma bu ma nee la aw ma nga yokk dépense bi jox sa yaay ngi dégg seen yaay amul problème ñun suñu yaay moom am problème léegi dama ne mhm. euh, jigéen ñi dafa am ñeenti affaire yu ñetti affaire yu nekk suñu yaay yi ñun góor ñi mhm. ñoom ñu mën a am ñeenti affaire xam nga lan moo nekk si suñu yaay yi ñun. Mhm. te bu jigéen ñëwul wanuñu loolu. bu buñ bu fekkee dëkkook suñu yaay chaque jour ñu ngi si suñu wetu yaay xam nga mooy lan. Mhm. yaay saa bu la xoolee danaan xale bu tuuti nga. Mhm. Ah, doo mës a màgg si kanamam. doo mës màgget si kanamam. yaay bu la xoolee day xool ba xam tilim nga wala set nga. dëgg la bu la xoolee day xool lekk nga wala lekkuloo. yaay loolu lay xool. xam nga jigéen bu ñëwee am ñett yooyu ba pare di def lu yaay dul def. sa yaay bu yëngatoo ñàkk la. Mhm. mais ñii duñ indi ci yooyu benn. aywa aywa xas benn duñ ko ci indi <laughs> benn. benn duñ ko ci indi. nee na ah. comme ça léegi pour waxtaan bi pour waxtaan bi yomb léegi bul généraliser mu waxal par exemple ñenn ñi si jigéen ñi. comprendre nga waaw mais pour waxtaan bi yomb pour que boobu généralisé wul. waaw man kay man kay ñëpp xam nañ ñëpp ñëpp noonu lañ na ñoo xam ne am nañ yi mhm. am. na. dëgg la mais dafa barewul mhm. mais daa barewul il faut dire la vérité. dëgg la li muy wax mhm. ñoo xam ne. boo leen xoolee ñoom seen biir sëy. ñoom dañoo irréprochable. maanaam dañuy def lépp lu ci waa mais barewul nag. loolu la ci eh, yaayu bees yi yaayu ndaw yi. barewul. billaah dégg nga loolu loolu mooy loolu mooy kaa kàddoom kàddoom yooyu mu yëkkati sax kii di ajaratu Penda Diallo Gueye mu ngi koy dëggal. gis nga ma wax la dara ñun suñu yaay yi. voilà suñu yaay yi ñun. mënoo mhm. leen a fexe ba mel ni ñoom. Mhm. mais c'est ça. ñun ay dem waaye mais bul fàtte bul fàtte que ni dañ naan ne kéwal kéwal du tëb. doom jëmm non non mais yéen bokku leen. yéen li ngeen tombé nii léegi lan moo tax ngeen favoriser li ngeen tombé nii. li ngeen tombé du sëy li ngeen tombé nii du sëy. du sëy li ngeen di sëyee jànku jànku yu njëkk yi noonu lañ daan jànku. en tout cas en moom la benn affaire balaa ngaa àggali euh, ndox fa mu doon fa mu doon taa boo fa demee ba léegi nga fekk fa tepp tepp euh, déedéet du nëb boo fa demee ba léegi fekk fa tepp tepp ah. voilà maintenant da ngay dem am na xale yu jigéen yoo xamante ne mm. seeni yaay mu ngi leen di jàngal amuñu jànk amuñu dara ñoom ñooy togg ñooy fóot ba pare terewul ñoom ñooy jàngi école lépp ñoom ñoo koy def ñooñu seen yaay jàngale moo tax tout bi ma lay wax moo tax ma ne la ñenn ñi boo wax ak ñenn ñi ma ne la ndox fa mu doon taa ba léegi boo fa demee nga fekk léegi xam nga jabar yi nii yu si ëpp jabar yi ñëw nii mhm. jabari whatsapp lañ mhm. xam nga jabari whatsapp mooy la mhm. léegi sëy buñ koy takk sax dañuy ubbi groupe whatsapp waxtaane ko waa am na bu njëkk ba dangay ñëw damay ñëw man bëgg jabar balaa ma koy wax sam papal comme Cheikh Tidiane ak euh, Alioune sama sama grand lañ ñoom laay njëkk a waxtaanal ñoom ñooy dem foofu koñ boobu xool ndaw si may wax kan la xanaa am loo jigéen daana dëkk ci koñ du du du am doom bu jigéen. te du ko yëg. parce que ñin jigéen ñi daan nekk ci koñ bi ñooy liggéeyal seen yaay. dem liggéeyal maire bi nga xam ne amul doom bu jigéen parce bu buñ daan takk jigéen dañ koy laajte. léegi ku gën a réew yaay gën a mën a sëy. léegi rek laa gis jigéen saña taxaw fi laajte ko di ko takk ci jamono ji boo ko fi laajte doo ko takk ci internet bi ñooy jar ñu ñu yar léegi ci kër yi kenn du leen takk gisal ñi ñu gën a yar si da ngay jël sa doom yow. Mhm. yar ko façon yar bi nga ko war a yar. Mhm. mu lamb sa loxo. gaaxalu mhm. la. nga bàyyi sa doom muy lambar lambari ci internet yi mel ni ceebu mbootaay di saagaante ndey. sëy bu mu tas am beneen. metti waaw ah, mais peut-être kooku tamit yàllaa ko dogal ne peut-être parce que parce que sëy tamit yàlla mu moo ko takkee sa arrage bu ne par exemple sëy bi de 6 mois lay durer 6 mois. lay durer non loolu waxin la yàlla moo ne xam nga dañ ni sëy wallaahi xoola xam nga dañ ni ah. yàlla moo ko takkee sa arrage ah, yàlla moo ni kénta laayal li ngeen sonne laa leen di dimbale loolu wax la rek dafa am ay mais bu ñëwaatee dañuy ñëw di wax loolu pour bu ñu ñëwaatee seeni affaire pour bu d'accord bu ñëwaatee si thème bi muy am jëkkër am far munaas lan moo ko war a mën a waral causes yi dafa bari si biir. Mhm. tey jii euh, am na koo xamante ni donc mën naa bañ a tudd turam sax mais mën naa la sama yaay ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. xale bu ndaw la sama mag la. 78 mhm. la judd mais da jëkkër yi day toog ay 6 mois presque wala mu toog 3 mois yoo xam ne ferme doo tëdd ak sa jabar sa kaw lal. Hmm? te yàlla mayu la loolu charia dañuy dëkkal ko dëkkoo ko. dëkkoo ko waaye yow dëkkoo gi la yàlla sant. ci sa diine defoo ko. nga bàyyi sa jabar muy tëdd ci kaw lal bi dem baali waali dem baali Youssou Ndour di dox every time yaa ngi doxi nekk ci la neex yor sa kat kat laal sa parfum dem doxi bu gudd jotee bu fajar jotee nga ñëw sang ba set toog nga ni da ngay julli nga ni da ngay wedd mais est-ce que amul sama a divorce ko yow topp man lay waxtaan quoi ma ko boo demee lan ngay wax sama yaay mhm. moom bu tasee tey bu ñëwee kër ga lan lay wax mhm. danaan sëyul ak sama jëkkër ak ma plaisir mhm. sister sànni si kàddu mais bu tas sëy bu tasee lan lay wax moo tas sama sëy mhm. mais fi mu ne nii nee na on est muñ mhm. mais loolu tey bu demee lan lay wax parents yi loolu cause la ci divorce d'accord dëgg la mhm. mm, mm, déglu naa tam bu baax am na solo wax dëgg mm. yàlla euh, te dafa nekk thème boo xamante ni aussi ñi ma touché daf dañoo bari parce que dafa sensible gis nga tey nit mënoo toog wax lu dul sa expérience leneen looy wax lu nekk rek nit moo la koy nettali te nettali nit mënulaa nettali ba nettali la lépp parce que du lundi au dimanche lii xew ci néegu sëy <laughs> ak lii xew ci biir kër kooku loolu du yaay du papa mhm. du kenn lu dul ñaar ñi nga xamante ni ñoo ko séq d'accord ñoom ñaar kese mhm. ñoo mën a toog ci seen aqulaayu taalaa ni ñun lii mooy suñu problème. d'accord dëgg la. Mm-hmm. te <coughs> jigéen ñi ñoo ci gën a nekk ay victimes. Mm-hmm. xam nga dégg naa la léegi ngay wax ci sa kàddu nga ne xale jigéen yi léegi. Mm-hmm. sëyu léegi. wala lii gis nga. gis nga gis nga góor ñi. dafa am benn benn benn esprit boo xamante ni dangeen ko def ci seeni bopp. ñun suñuy yaay. dañ ñoo yar fi ñu war a yare mm-hmm. ku ci am chance mm-hmm. ku ci am parce que nag mm-hmm. parent chance la du ñëpp am chance am parent boo xamante ni wax dëgg yàlla danaan la bàyyi li toogal fi jommal li defal li bul ànd ak kii loolu chance la dangeen ngeen ni bokk ndey ak baay ngeen yaru ci biir kër te du ngeen yem jikko te pourtant yéen a yéen bokk ndey ak baay yenn a yaroo ci biir kër mais du ngeen yem ci ko mhm. te pourtant sa yaay dafa baax sa papa dafa baax mhm. mais yemu leen ci ko mhm. loolu aussi beneen pàcc la cest à affaire bi dafa large ba nga xamante ni boo ko jëlee rek tënk ko ci xale yi tey wala góoru tey wala jigéenu tey da ngay réer c'est très important ce qui nga affaire bi chance la gis nga parent ni mu nekkee chance d'accord noonu la jëkkër nekkee chance noonu la jabar nekkee chance noonu la doom bi ngay jur nekkee mu war laa relever mm-hmm. Mm-hmm. war a war a wane yow jigéen ji nga xamante ne yow yaa ngi ñëw ci sa néegu sëy mm-hmm. war faa sëy war faa am ay doom war a prouver éducation bi sa yaay defoon démb yow nga war ko def ci say doom kooku tamit chance lay doon mais tamit dafa am pàcc boo xamante ne yàlla moo ko moom sànq nee nga jigéen dafa war a xool góor comme ñun suñu yaay yi ni ñuy xool dama ci d'accord ak yow torop gis nga boo nekkee sa boroom kër bala moo am yërmande ci yow yërmande boobu daf ko fa war a fekk parce que dañoo dox ba gisante nga bëgg ma ci farastas yàlla xam ne takk ma indi ma mm-hmm. mais yow su ma wéeruwul ci say ay épaule doonuma sa wéeruwaay mm-hmm. yow nga doon sama sama seetu sama miroir boo xamante ne saa bu ma xëyee yow mm-hmm. lépp lu ma manqué ci àdduna mm-hmm. muy waxtaan parce que am na góor ñoo xamante ne amuñu jot waxtaan ak seen jabar. merci beaucoup bëgguñu ko sax dañ xam nga loolu. merci duñu ak seen jabar yi. amuñu jot. d'accord amuñu jot amuñu jotu toog waxtaan ak mais amul amul sens loolu. mais déglu ma rek déglu ma même ma ñëw. amuñu amuñu jot waxtaan ak seen jabar. te gis nga hmm. couple bu amul complicité. d'accord bu amul communication. Hmm. Hmm. couple boobu du dem. d'accord waaw mais Unaar. Unaar yow euh, euh, kii euh, tey jii communication boobu ngeen di wax. waaw avec l'avènement de TikTok Instagram nangam. mais yéen ñii yéen a waxtaanatul ak ak ak. déglu ma mais mais ñaar non parce que xam nga lu tax da ngay ñëw mais mais mais mais mais mais demal ci divorce yu bare te xam na lañ ne wax bu guddee bu ma ñëwee daal moom mu ngi ci téléphone am. Mhm. dégg nga ma sax toppatoo du ma faale. waaw mais coach jigéen ñi tey noonu la ñuy def léegi téléphone bi tax na bu guddee ñoom téléphone la ñu tëddee. waaw mais coach TikTok kañ la xew. waaw dafa TikTok yaa ngi deux ans dafa feeñal seen i déglu ma grand soxna voilà lii rek laa laaj ñoom ñaar. Mhm. voilà mhm. heure waxtaan. Mhm. heure waxtaan. ma jox la xam. la xaaral ma wax la. dama jongee. <laughs> man soo ma xëy na peut-être temps bi moo xëy na peut-être temps bi moo ñu ko dul may. heure waxtaan laa wax. xëy na peut-être temps bi moo ñu ko dul may gis nga pour ñu ko temps bi mayoon. non ah. doo déglu nii lii kay lu ndaw la heure waxtaan nii heure waxtaan. dina ñëw waaw waxtaan heure boo ma ko waxee boo leen ma ko waxee jël leen lii. dégloo déggoo li ma la wax. xam nga léegi jàngal non non non non non moom wax léegi si heure waxtaan boobu noonu. ñii góor. d'accord ma la dara. sa moto sax wala sa oto soo ko mhm. yoree mhm. saa bu dawee ba ngoon mhm. di nga fompaat raxas góor gi mëtëru jigéen bi la day daw dem jëli ji indi su ñëwee jigéen bi raxas su xëyaatee beesaat mais am na góor yoo xam ne kenn raxasu leen seen bopp yi sax dafa mujjee tombante léegi ba <laughs> moo daal dañuy naan cancer de sein affaire yooyu docteur yi génn naan nañ leen laalal seen ween yeeg yooyu nga baal ma maccal seen ween. waaye da ngeen ñoo seen wax yi wax yu mel ne seen njang boo ko boo leen jegee sax da neex ma wala dara neex xam nga fa la nekk neex xam ngeen ko neex. ci jigéen xam nga fan lañ ne pour kii doon wax sànq waa ji dafa abandonné. xam nga neex fan la nekk ci jigéen xam nga ko. ah moo gis nga ko. léegi man man man comme ay seen njàng yow da ngay yor xoolal ba rafet ñi rek la ñuy fas. non non yow non non yow léegi man foofu noonu dama bëgg nga ñëw si mais coach laa bëgg interpellé <laughs> mooy euh, réaction Mounas ah. Balde déjà ñu fàttali thème bi rek mooy am jëkkër am far ah, maintenant Mounas ki mu expliquer comme quoi que à chaque fois jëkkëram da koy bàyyi di ko jéggi di dem 4 mhm. euh, heures du matin wala cinq heures du matin mu ñëw mu dugg si maintenant naka nga jàngatee euh, diggante yooyu noonu bu fekkee ne loolu am na est-ce que mieux vaut mënu ko wëcc mu dem wala peut-être certainement mhm. kooku am loo xamante ne mu ngi si yaram mu koy nëbb te mënu ko wax jabar ji également. kaay jëmmal la wax nga nit nit boppam. Mhm. waxuma damay généraliser nit. Euh, bakkanam la am. Mhm. bakkan moom fu neex. lu neex rek lay wër. Mhm. tey jii ñun bu ñu demee ba di tekk jabar lu neex lañ bëgg. tey yow mii boo toogee joxe sa dépense da nga bëgg a lekk lu neex kon lii. li tànk yaa ngi dem foo nekk muy neex foofu ngay toog. li ngay neexal de amuñu ko. léegi nag yow boo toogee ba nga xam ne yow mii maanaam yow sa kër boo fa ñëwee nga fekk fa ay ñu wax la ay problème ay problème rek lañ lay wax. ngay <laughs> def ah. benn boo même buñ la problème tey jii communication bi unaar di wax. Mhm. di wax noonu doo ko fa fekk parce que ñu nga ca TikTok. Mhm. Instagram. waaw ñu nga ca Facebook. di nangam nangam eh, eh, eh, waaye xoolal diw mais mais non non ou bien seen ou bien nekk seen waaw film yooyu seen film yooyu di seetaan loolu la ñu nekkee mm-hmm. mais léegi nag yow boo toogee ni yow kese mm-hmm. à la fin day soof mm-hmm. lan ngay def da ngay génn ou bien yow yow boo nekk lan laa fekk ci kër gi da lay xam nga no jigéen xam nga góor la mais da ngay ko séenu génn boobu parce que du ma fekk parce que kër gi bu ma fekk lu neex damay dem génn. ah bon waaw. bu ma fa fekkul lu ne loo xam ne day seddal sama xol loo xam ne kii kii ma indi foofu moom mu ko wax a defal. bu ma ko gisul ci moom damay dem wuti. question bi jeex na yow yow bu doon yow noonu ni def yow noonu ngay def. léegi ku góor jigéen gi est-ce que moom bu gisul lu neex mënu dem feneen. gis nga nii ma wax la dara. Uh-huh. gis nga compte TikTok yi ñu ubbi. Uh-huh. moo tax góor ñemeetuñ leen a fase. ñemetuñ leen a fase. Uh-huh. boo leen di fase ñu lay laay fa. comprend nga li mu la wax da nga leen di bàyyi bañ dem ak seen bopp parce que da ngay ñëw fekk nit ki di live wala muy seetaan ay affaire du du du du du la faale xoola heure waxtaan xam nga ban heure xaaral ma jàngal leen heure waxtaan ban heure la xoola bu bu sawaay ñëwee ñun su da daan gis suñu yaay bu buñ suñu papa yi musaan ñëw dañuy dañuy jël ndox may may sa papa xam nga lan la woon mhm. est xam nga lan la woon dafay jox sa papa mhm. bu naanee lu bëri mu xam ne lekk na si àll bi mu ne ko mu nax ko ne ko xanaa seen sarvice dafa am ku doon takk jabar rek sa papa ne ko waaw dafa am ku doon takk jabar bi ma ko waxee ma ànd ak moom wala diw moo xuloo woon ak jabaram ñu jëli jabar ji ñu añaale fa rek nga taalal ko ataaya pour loolu la yéen nandu leen xamu leen tous <laughs> comprend ngi ni mu la léegi bu dee naanul lu bari <laughs> nga xam ni dafa xiif nga gaawantu defar lekk gi jox ko mhm. loolu la woon mais nii xàmmeewuñ buñ tey ji ku la si jox lekk. lekkul lekkuloo rek danaan waaw du ma togg lu ñuy lekk nga jaar si àll bi rek indil la problème ak yow. rek nga dal si kawam. Mhm. te góor boppam bopp gaynde la. d'accord comme ça ñun ba ma leen bëgg a jàngal dara rek ni ñu amee fitu jël néew. <laughs> Mhm. dem suuli ko ñëw toog di waxtaan ak yéen te yéen munu leen ko. Mhm. mun ngeen a def dara ñun dañuy denc lu bëri ay ati at di la di la rëbb. te yéen munu leen lool parce que loo leen yëg wasaare ji ko ci biti. soxla quoi. ñun rek ah. ñu leen mën a yor fi ñu fi ñu dëkkal ñaaw na ñu bàyyi la nga tàggoo Mounas ñaawul sax de. Mhm. temps bee kiiwul rek. Mounas mhm. ah, euh, waaw ñu bàyyi la nga tàggoo ko lu ngeen yëg mu siiw ñaaw na trop. <laughs> vraiment amuñu ah, secret de. Mm, mm. bul tëdd guddi mukk mu neex nga wax ko dara buy xuloog yow la koy wax. <laughs> Mhm. vraiment bu baax a baax ci mhm. petit déj mhm. kontaan nañ suñu invité bi tamit ndax man sama yaay jaxate la sant <laughs> <laughs> waaw mu bokk fu baax ñoom da nga leen di tagg ci jaxate kaba yéri ma yéri borom njéeme ma suudu borom sawata jaxate indi ma indi ma jox ko kontaan ma jox ko mi ngi noonu mm-hmm. merci beaucoup Jimbori mun nga tàggoo kontaan nañ bu baax a baax ci la voix des sans voix mm-hmm. man kontaan naa ci yéen xam man moom fii samay jigéen rek ñoo fii ñëw parce que bàjjan ak yow mi mm-hmm. samay xarit ngeen samay jigéen yàgg soo leen ma wooyee man damay ñëw d'accord et puis grand Cheikh grand ñooñu moom su ma xëyee nii tax su ma jullee weer ba pare damay kar dama leen di kar seetaan leen quoi yàlla na leen yàlla defal jàmm daal gudd fan ak wér gi yaram maa eh, ngi nuyu sama eh, frère di nga ba pare. di ja maxu maa ngi koy ziar bu baax a baax. ñu dem di wax Petit Déj eh, namm na ko. d' accord namm ko lool kay ah, maxu borom baax la ñu dem jëli ji suñu rubrique euh, musique andi si